Euh, kon nag sëriñ sëriñ bi sëriñ Amadou Ndiaye xam naa kon tii foofu rek ci la ñuy duggee day mel ne kon ñu ngi waxtaan ci pas-pas pas nag kon ni ngeen ñu ko leer rek mooy lislaam ju hmm. set te la mooy li nit ki fas te war koo gëm te mooy gëm yàlla te wéetal ko dikkal nga ñu léegi ci saaru gàttoo di xul wallahu aat te mooy kennal borom bi subhanahu wa taala te sëriñ bi ci loolu la nekkoon ci la doon dund te moom la doon jàngale itam hmm. bu ñuy waxtaanee pas-pas ak akub taalibe nag bëggoon ñu nag ci sëriñ Touba mii nu yaakaar nag sëriñ Touba gëm ak pas-pasam moom dëgg dëgg dëgg dëgg ak ndaka la ab taalibe war a fas ci fas-fasu ngir mën a jariñu ci moom ak dëgg dëgg lan moo nekkoon pas-pasub Seexul Xadiim waaw jërëjëf sëñ mbay loolu itam li ngay faral di wax rek mooy mag fu mu nekkut ay waxam ak fa nekkal mm-hmm. sëriñ bi moom li wax saxitu bi anna allaha rabbul xaq mm-hmm. loolu leer na wa anna muhammadan rasulul xalq loolu foofu yi rek la newoon mënee su koo wër faneen ba gis ko fa ndax nekkul faneen foofu yi rek la nekk mu waxoon itam ni dalaltu aabidan aabid xadiman li rasul min aama ay sasin ilaa aami rahil te loolu mooy li Cheikh Mouhamadul Muntaxa di wax ni keroog bañ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci boromam rekk la ne mm-hmm. mu wax itam ni lastu azalu abudulahul jalil ila mamati bi sunnati rasul moseesu koo seen ci lenn lu dul jaamu yàlla waaye ci sunna kooku ko ko bëgg roy faaw nga teg sa tànk foofu mu tegoon mhm. taalibe yi néewu leen néewuñu leen doon leen sëñ Tuubaa mhm. waaye def leen lu niroog lim doon def mhm. teg leen ko fi mu ko teg loolu rek lañ leen ci sant laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa waaw na doon sa imam bu taxawee nga taxaw bu rukkoo nga rukkoo bu sujjootee nga sujjoot hmm. bu lee nga sëlmal loolu rek la ak taalibe nag mooy fexeel ba bu ko jëkk a def hmm. bu def waaw hmm. ndax imaam boo ko jëkkee rukkoo sa julli yàqu na boo ko jëkkee sujjoot sa julli yàqu na imaam it daa mel ne sëñ te naan sëgg leen sigg leen déedéet day jiitu rek di def day jiitu di def la muy def nag loolu lay jëm xam ne di ko loolu toujours mag ñi jàngale nañ ko dangay wax ni maam Thierno Birahim jiitu julli jamuut ci biir julli gi am ci tel bi ku ko ku ko sàbbaal bi mu sëlmalee mu laaj ku ko sàbbaal ñu ni cell mu laajaat ko ñu ni cell ca yoonu ñetteelu ka ko sàbbaal ni ko man la ba muy dem ca kër ga mu yóbbaale ko mhm. ca kër ga ba mu demee mu may ko mbubb ak ciit lay la ak tubéy mhm. ni ko yow digal naa la bul toppati ci gannaaw ku dul juum mhm. Mm. waaw digal naa la bul toppati ci gannaaw ko dul juum waaw ni ko xam nga luy tax nga xam ne daa juum mooy la muy def da nga koy xam mm-hmm. moo tax bu juumee nga xam ne da ngaa juum mm-hmm. tarkal kon am mooy war a xam lépp sëriñ bi xam daa war a xam lépp sëriñ bi xam boo xamul yoon ma mën nañ kay bu wàccee yoon nga xam ne wàcc na mm-hmm. tarkal ko war a moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon ni digal naa képp ku aju ci man nga jàngi sa faratay diine ndax ci diine la lu bëgg a wommat teg ca nag ni warlul naa leen bindal leen téere yi ngeen koy jànge kon sëriñ bi wàcc na lu des ci ñun la dese noo bëgg a topp suñ bakkan ba pare bëgg ko layal la sëñ bi te sëñ Moussa daa waxoon ni képp koo xam ne mënoo koo jaamuloo yàlla mënoo tax mu lëggeel yàlla na teel a génn ci moom soo ko defut bis dana ñëw nga ni siiwa tàggoog moom mu tëla tëcc loolu mooy njàng loolu mooy njàngalem sëñ Tuubaa mag ñi nag pas-pas po bii nga xamante ne ni moom lañ roye ci sëñ bi muy fii sëriñ bi di leen woo foofu lañ ko bëgg a fekk xam nañu sëñ bee leen gën a bar moo leen ëpp ay jéego waaye teewul ñu topp ko. li hmm. ca dox seen kaptalaayul kàttan suñ borom dikke leen ak coobareem yéegal leen ci yéeg bu gaaw ndax mag ñi diggante bu gàtt lañ topp sëñ àgg fañ jëm. Hmm. Hmm. waaw loolu yitte moo leen ko may ju kawe ak pas-pas. pas-pas bu dëggu boo xamante ni dafa dëggu nga xam ne amul tricher. Mhm. dëggu lu dëggu la ci ñoom. Mhm. te pas bi itam jaral na leen. jaral na leen waaw leen a jaral. daf leen a jaral te te loo jënde loo jënde sa bakkan rek da am loola ba pare dese sa bakkan. Mhm. te mag ñi seen pas-pas bi seen bakkan lañ ko jënde waaw ndax daje nañu ak circonstances yoo xamante ni seen bakkan xajoon na ci. waaye waaye jaral na leen ko. waaw ñooñu tricher wuñ loolu dëgg dëgg la ci ñoom. loolu moo moo ci moo ci feeñ nga xam ni. pas-pas boo bii nga xamante ne ni moom lañ am mm-hmm. ba tax ñu ànd ak seeñ bi mooy ñaar rek lañ ci jëfandikoo muy sopp ak wóolu mm-hmm. waaw sëñ bi li muy bind lu mu bari bari bari bari bari ku ma bañ lay wax mm-hmm. waaye waxut fenn ku ma gëm jëfandikoowul fenn baatub imaan man amana bii waxu ko eh. man lam yoxit bu nii rek lay wax te sëñ bi ku ko bañ ku ko bañ ku ne rek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga bañ ndax fi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam foofu la ko teg mm-hmm. li yonent bi doon wax loola la wax mm-hmm. waxut la neen kon ku wet bi ay waxam rek léegi yonent bi nga wet bëgg ko mooy bëgg yàlla bëgg ko mooy bëgg yonent bi mm. ndax ci yàlla la woote jëme waaye ci ngirum yonent bi lay woote mm-hmm. kon dañuy bu ma la déggee kon ñi am fulla yi naan ahlu sunna ahlu sunna kon de xanaa dégg-dégg ahlu sunna ñu naan ñooñu moom moom mooy dégguñu sun ahlu sunna mooy taalibi sëñ Tuubaa hmm. léeg-léeg sax nga dégg koo xam ne dana naan sëñ bi léegi xadis bi amul amul tawaatur ndax daa waroon andiw andiw andiw ma ni leen ki taxaw ne axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku yaa yaa déggul waaye am yow amutoo la axbarani saafahani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> salli wa sallim alal mukallim nga xam ni damirul muxaatab la daa jàkkaarloog ki muy waxal kooku ruwaat yi yoonam nekku ci mm-hmm. parce que borom wax ji lay lay communiquer mm-hmm. ah. loolu faawu taalibe yi bàyyi ko bàyyi ko xel bàyyi xel kii ñu àndal li muy communiquer lii suñ mun Muntaxa wax dañoo gën a jege xëy na suñ tubaab daa xaw a sori ñun mais sëñ Muntaxa li mu wax lu yomb a dégg la ku bëgg a baax royal ci man ndax doo gis dara lu dul sëñ rek képp kay. waaye ndax ndax du am ko mel ne moom moo tax ñu ñuy way falal ñun. waaw kay mais mais ñu way falal dara. waaw kay mais nag li mu wax lim la ca teg lu am solo mooy ku bëgg a roy ci man. Mhm. da may déglu xam li may wax. te fi mu doon saytaane dox na suñu digg wax ji da ngay dégg ñu naan ah sëñ bi ne moom daanaka li muy wax kenn xamu ko. Eh. mooy jàppale si nañ ni ñi ba boo déggatee ay waxam da nga ne ah kii de moom ay waxam kenn mënu koo dégg. wala moom sax moom ci boppam li muy wax nii léeg-léeg sax ngay wax ñu jàpp ni da ngay wax waxi dof la. Hmm. daa xaalu daa yéeg. <laughs> waaw waaw kay dafa aalu wala dafa yéeg yooyu yëpp fi doon nii ay baat la yoo xam ne saytaane moo ko yett teg ko ci suñu wet. ngir bëgg lu yàlla fandoo ko bëgg moom sëñ Ahmadu lu muy tekki moom waxe daf lay la jub lay nekk wala waaw daa àllu mooy li muy wax du waxi nit rek kenn mënu ko rek mooy lu kenn mënul rek te waxut waxi waxi wax joo xamante kenn mënu ko li muy wax ah, ci ci xam-xam la ko teg hmm. li muy wax ci aw yoon la ko teg woo xamante ni boo sooboo ci yoon wa tuuti te te sëñ Ahmadu ah. li muy wax ñi mu koy waxal ah. ñoo ñoo ko ëpp kartan hmm. ëpp ko doole daq war ko ko gën a mën a jëf hmm. waaw kay waaw waaye da leen da leen gën a xam yàlla nit ñi damay wax ni nit ñi kenn du leen jàngal jaamu yàlla da leen di jàngal yàlla hmm. ku xam ne yàlla buur la da nga ko jaamu waaye mën na maa jàng lu ñuy jaamoo yàlla ba pare te xawma yàlla du ma ko jëfe <laughs> may xamal yàlla boo ma xamalee ne yàlla buur la hmm. danaa ko moytu hmm. parce que yàlla ko xam ne buur la da nga ko jaamu sëñ bi ñim àndaloon da leen doon xamal yàlla moo taxoon ñu gis kook bañ koo gis ak jege kook sori ko yëpp dañuy tegu ci yoon faw ñu tegu ci waaye damay seetlu nag jamono ji day mel ne bu ñu nee ci wetu sëñ bi mel ni ab murit war a mel ci muuraay ci comportement ci lépp waaye bu ñu nee daan génn dëkk wala ñu dem faneen mel na leen. waaw loolu kon mooy li ngay wax rek nañ leen xamal. waaw moo tax ma ne leen mar bi te du tax a regg. ñooñu naxuñu kenn seen bopp la nax te bis dana ñoo xam ne seen bopp la nax. tame bii segg murid yi bàmmeel la du fii ci kaw suuf. tame bii segg murid saadix yi bàmmeel la bàmmeel moo ñuy séparé mooy séparé murid saadix yi ak muridandoo yi. dëgg adduna moom fi comme neex nga yëkk soxla ni aw làmmiñ ñu koy wax bu ko defee nag nun suñu avantage mooy jéem a defar suñu pas-pas ba lépp loo xamante ni ñoo ngi koy yëngu yàlla doo ko tax ndax lépp loo def ngir nit ñi loolu ngistal la mm-hmm. loo bàyyi ngir nit ñi loolu shirk la mm-hmm. mm-hmm. Sëñ Tuubaa daa fexoon ba nit ñi mu yore li ñuy jëf moom ñu gis ko ak ñu bañ koo gis lañ ci yemale parce que xam na ni yàlla ngi leen di gis te dana fay te loolu la leen jàngal sëñ Thierno Diouf Lambaye soo seeti bis mu ci mu ciy wax ni booba euh, day tuut tànk yor addiyam jox ko benn bëkk néeg ci bëkk néegi sëñ bi ni ko bu sëñ Tuubaa génnee joxal ma ko te ni ko Thierno Diouf doomi Aliou Diouf Lambaye moo la ko jox mm-hmm. ndax nee na xam naa ni booba bu sëñ bi génnee mbooloo mi fi nekk ñoo ma ëpp doole kër kër ji mënu àgg ci moom ne ma toog ne di ko xool ne ba sañ bi génn bëkk néeg bi jox ko waaye wax ko dara li ma ko waxoon waxu ko waaye jox na ko addiya yi bi sëñ bi duggaatee ci biir ma song ko kalambeetu ci baatam ni ko li ma la wax loolu waxoo ko nee na biñ kër këree yëngutu bi tax sëñ bi ni pell bunt bi ni ana lu mu doon nee ma ni ko diw mi dama ko joxoon sama addiya ni ko bu sëñ bi génnee nee ko Ceerno Juuf doomi Aliou Juuf Lambaay moo la ko jox te bi nga génnee waxula dara sëñ yàlla taxut mais daal ni wëriñ wan ma ginnaaw ci biir nee na keroog laa tàmbali lépp lu ma defati yàlla tax benn baat boobee rek defar na adduna defar na adduna te loolu dong ci sëñ bi bëggoon nit la waay mën a wax mooy ñu am tawxiid képp la sëñ Tuubaa bëggoon ci ñoom hmm. kepp tawxiid rek bu tawxiid amul daal luñ la mën a wax loolu amul njariñ hmm. màggal gee kër kër jéeg luñ ci mën a def tawxiid amul ci nga xam ni jëf yàlla do kaay seen sant leen ma yàlla la wax waxul leen sant ma man hmm. sant la leen ma yàlla ndax li ma suñ borom defal hmm. sama cantu bopp néew na ci doole kaay leen sant le ma nu war a boole ñaar noonu sant yàlla ak sant ko ci woo gim nu ñu ngir nu sant yàlla ngir sant yàlla li mu jafee ay min a zakur lu néew ci sama jaam ñoo may sant te boo ko xoolee ci réew mi rek gis ko hmm. nit ñi jàmbat fi mu toll nii koo koo tàngoor yi mun la tàngoor yi koo ni ndox mi mun la woo ndox mi nangam ak nangam alhamdulilahi rabbil alamin lu ju doon dëgg lu néew nga koy dégg hmm. wallaahi lu néew jàmm ñu ne li ëpp jàmm la ñu wax lépp rek waaw waaye jàmbat déedéet hmm. moom jàmbat rek foofu yi nag la sëñ bi ne woon foofu yi itam la sëñ bi fexe woon ba muritam yi nga xamante ni ñoo ko jëkk a topp topp topp ñu ko woon ngir barke topp ñu ko woon ngir am am topp ñu ko woon ngir dara teñ biñ koy topp itam xamaguñ ku topp Sëñ Tuubaa lu muy am ñoom mag ñi bi ñu ànd ak Sëñ Tuubaa xamaguñ ku topp Sëñ Tuubaa li muy am tumuranke gu metti dong la ñu amoon te ñun laaj sëriñ bi parcours bi waaye ñun moom kay ci wàllu saayir ñun mën nañ cee wane lu bare bari loo xam ne ni wóor nañu sunu njàmbar indiwu ko fi sunu yafus mënu koo yàq mm-hmm. loolu duñ xam ne duñ ca dara dama am na koo xam ne bu guddee lay root ndaa yi ba mu fees yow na man ngaa wéeru ci ndaa mun la may ma ndox ma naan nga defee ni sax njàmbaara te fekk ndaal yow wóor na la rootoo ko mm-hmm. Mm-hmm. Ah, li ne ci barab yi sëñ bi la wallaahi benn sikki sàkk moom la ku am la ko njëkk léegi nag ngor gi mooy la Cheikh saa waxoon rek fekk booba daa togg ndab indil ko sëñ bi ni ko loo ci jublu mu ne ko xanaa sant la mu ne ko mënoo ko li tax nga man ko man la ndab li li tax nga mën koo togg man la waaw li tax nga mën a togg ndab li man la Cheikh Issa ko kon nu ñu lay sant mu ne ko ngeen xam ni xorom si naar beeku fi indi. waaw bàyyi ko ah, jàmm yàlla geeg jàmm jeek benn yi ñu am ak lépp xam nañu Sëñ Tuubaa ñun bu du woon ak sëñ bi ñoo ñàkk yi ñoo yem. wala ñu tànnoon. baa ñu yées waaw mbaa ndax am sëñ bi te ñeme yenn yi ba nu tànnoon am na ci seex boo xam ne sëñ bi da ko ni dama bëgg nga toggal ma ndab tam doon sa ñaqu bopp muy def bu xëyee jël aw simiyam dem ci àll ba gori matt bu ñëwee ci keesu biiram la koy weer ba mu wow mu dem ca marché ba jaay ko ba mu mat njëgub gàtt mu jënd ko togg ca ab ceeb andi ko ceebu ndawal andi ko ci sëñ bi bi ko sëñ bi ubbee dañu ko damaa bëgg ngeen xam ne bu du woon a sama jëmm ji bala ngeen mosok ndawal nii ngeen di def waaw maa ko gëm ak ah, leer foofu la sëñ bi ne woon léegi nag noonu bu bëggee sensibiliser kon yi dañ leen di xamal ni leen ni yëf yi euh, ridwanullahi rek moo ko mën a may hmm. te yàlla kenn du foofu ba ko te ko foo boo amee yàlla ñàkk ko hmm. sëñ génn ci yoon wi foofu waaw mm-hmm. ah, mboosoo rek cambal cambal yëpp danañ ko effacé mu dem. dafa suñu énergie suñu temps suñu jot suñu yitte yëpp. waa parce que damay jàpp ni nit lépp lu yóbbu taam war na koo teral. lu mm. yóbbu sa temps bu la naree toroxal bàyyi ko fa te dem. Mm-hmm. lu yóbbu sa temps rek war na laa teral parce que temps dafa cher kon lu ma ko jënd rek loolu war na maa teral. waaw ah, kay kon bala ma koo joxe ci dara damay xool li ma koy joxe ba xam ndax jar na ko wala jaru ko macha hmm. allah tarkal hmm. macha allah eh, sëñ Moustapha kon yaakaar naa fii sëñ Ahmadou hmm. biir wax ngay junj ci at yi nga xam ne suñu roy